bari na ay problème yu am ci biir commune bi mais buñ ko jëlee def ko au niveau de l' administration bàyyi les maires du sotti yéen a wax actuellement tout à l' heure da ngeen bëgg associer intercommunalité vous avez donné la parole aux représentants yi nga xam ne ñoo nekk dans les communes mais je pense que ñoom tamit maire ñoo leen wax ndax kenn ku ci nekk ci commune nga nekk te commune bi nga nekk wala commune yi ngeen di topp nous ñëpp kenn ku ci nekk problème bi nga am yaa am dans la commune nag ñu bëgg ñu ngi des maires qui là yi nga xam ne invité dans la convocation bu ñu invité convocation bi ñëw mais dañu invité pour que buñ ñu wax suñu xalaat dama ragal actuellement pompage de solution ci inondation nous ngi wax pompage pompage depuis ba léegi ñu Abdou Diouf ba léegi mu ngi bopp te kon am na leneen waroon ñu changer tactique il foofu laa lay woo changer leen tactique dañuy def ay ouvrage ouvrage yi ñuy def dañuy def ay ouvrage yu am finalité wax nañu sànq ne am na ay raccordement yoo xam ne dañ waroon raccordé au sur le Marigot de Mbao on l'a pas fait depuis dix ans ñu ngi koy wax bu ñu raccordé loolu am na ay inondation dafa yoo xam ne lu ne stagné day continuer def pour Kër Massar mun nañ ko connecté mu dem Malika am na réseau bu àggee mun na continuer def feneen ak feneen si bokk yow amul fenn foo xam ne amul fi am point d'eau fi nga ne loo xam ne fa a dem bu ñu ko fa am mais fa nañu def ay ouvrage yu tax ñu nekk mais li ñu bëgg rek mooy ngeen associer les def c'est extrêmement